fii ci quartier bu ñuy wax HLM 5 nekk ci diwaanu Ndakaaru askan wi jafe-jafe yu métti métti lañuy dund lu yàgg lool la ñoom ñi li am nañu tiitaange ci seen wér yaram li ko waral di ñàkkum assainissement ci bile quartier amoon na ay jardin ak ale yu rafet quartier bu rafet la woon quartier bu rafet la woon macha allah ay jardin amoon na yëpp quoi ale yu dëkkin bu rafet lañ fi dëkk fii quoi bu rafet macha allah mais léegi dafa dafa dafa surpeuplé ba pare dafa yàqu aussi dafa marché bi dafa yëpp dafa ñëw ci ci surtout ci boucher bi sax la ñuy gën a wax parce que dañu fi ay mag te xet bi non seulement daf leen di sonal ak ñi fi romb ñëpp. ci yoon la bu bu marché bi di emprunté moo tax bu def sonal trop sa yàgg na nag def nañ ci lu nekk. amoon na ay travaux yu ñu fi commencé woon di ko def ni dañuy changé tuyaux yi parce que fibre ciment la woon après ñu ne dañ ciy def ay PVC depuis loolu bi ñu ko laalee ba léegi si la affaire yi commencé di di am ay ay ay ay ay kii ay dommages et intérêts quoi commencé yàqu àggul. nii si biir bu bi nañ koy passé mun naa wax parce que. boucher bi sonal nañu trop trop trop trop wax dëgg yàlla ñoo am fii suñuy yaay ñu war a génn génn mënatuñu génn ndax boucher bi tënk na leen man mi sama doom elle est asthmatique mais damay moyen bu nekk laay def pour affaire bi bañ ko sonal te da koy sonal da ngay obligé tëj néeg yeeg salle bi lépp ngay tëj tàngaay di la bëgg a rey si biir kër gi lépp. ñun fii lañ juddoo te ñun ba ñuy juddoo fii nii HLM mosul mel nii HLM c'était tellement extraordinaire. banc de public yi danga ko doon gis jardin yi xale yi fu ñuy foowee tu da nga ko doon gis mais léegi mënatoo ko gis te ñun banc bi lañu ñu am famille bi yëpp koñ bi yëpp fii la ñuy toog si bi te ñu ngi dund loo xam ne métti na ça fait des années rek kon tey di xibaar bi ñëw na fii ñu mun a am sànni suñu kàddu daf ñuy neex quoi parce que ñun xaar ñu ku ñu ku ñu jàppale xaar ñu dara benn métit la ñu am mooy bouger. xam nga boose moom luy génn ñun munuñu ko arrêté du suñu domaine mais bu doon mbalit dafa am fii cat ba cat ñun waa ko ñun fii dëkk duñu xaar kenn ku ñu woone ay dem leen woowi poubelle bi wala dem leen di ñun suñu bopp ñun les jeunes ñun ñooy defar koñ bi cat ba cat bale ko ba mu set dafa ko si ay poubelle dem yóbbu ko dem tuuri ko man témoin oculaire la pour mun a wax si koñ bi parce que boo xoolee ñun suñu activité yëpp si koñ bi lañ koy defee te fii lañ dëkk fii la ñuy fréquente boobu man mii si boppam fii laay yëngatu comme comme ñu bëri comme ñu si ñu si ëpp fii nii problème bii daal depuis bi nawet bi passé ba léegi ñun lii nawet lañ ko daan dund mais bi nawet bi passé ba léegi moom la ñuy dund fii nii soo ñëwee nag tey jii nii parce que lii tam lu jar a souligner la su ngeen ñëwee gis mu xaw a vide nii nii c'est pas parce que jàngoro bi dañ na mais dañul de dafa am euh, depuis depuis bi ñuy koritee ba léegi dafa am benn pompe bu ñuy defar fee donc li tax ñoom ñiy pompe du fii nii mais dafa am benn panne bu am feenee léegi gars yi di pompe pour ndox bi di parce que marché bi ñoom toujours man damay wax li am parce que nit boo wax da nga wax gëm mairie bi benn parole la ñu am ñoom mooy seen priorité marché bi la. marché bi su nañ fi xëy benn bëccët mu bouché gars yi fay xëy ne du ñu fay juuti mais balaa 24 heures gars yi defal nañ ko mais ñun ñi nga xamante ni fii lañ dëkk suñu carte d'identité HLM moo si nekk ñun ñëpp ay habitants yi looy lañu. kenn ëppale wuñu fi ñun ñoo fi priorité tey jii nii ñi nga xamante ni si marché bi la ñuy xëy bu gudd jotee dañuy dem ñibbi. mais ñun ñooy fanaan fi tey bu catastrophe amoon fii kan moo rek la du ñun. problème bi métti trop métti na na ba fu fa yóbbu rek ay boucher bi daal benn boucher bu ndaw moo ñu sonal chaque jour matin matin bu ñu indi sangu day génn dem ba bu feesee fii ci biir koñ bi ñun ñoom obligé mujj euh, bët euh, mur école bi mu ciy dem. mur école bi lañ mujj bët mu ciy dem te warul te loolu sax warul mais ñàkk pexe moo tax di woo nag di woote ñëpp ku ñu ci dimbali. di woo euh, di woo monsieur le maire. mbedd yi daanaka sax jaar fi doon na lu jafe lool la lii di firndeel da yokk jafe-jafe yi nga xamante ne bi moom lañ fi nemmeeku lan moo waral bile jafe-jafe bu ñu sukkandiku ci askan wi bokk na ci canal d'évacuation d'eau bi nga xamante ne day faral di fat mbalit wala ndox yu bon yi nga xamante ne bi dañ ko ciy sotti te bàyyee ko ci marché bu HLM. dañoo am population boo xam ne amuñu ko woon au début et auparavant ce sont les defuñu woon loo xam ne benn contenance boo xam ni HLM dina mën a àttan actuellement nit ñi ndax actuellement boo xoolee ci HLM bi euh, marché bi d' abord tout d' abord lay commencé boo xoolee boo gisee benn cantine bu mun a contenir dix personnes cantine boobu vingt personnes lay lay contenir en plus les marchands ambulants je ne parle pas mais des commerçants mais les marchands ambulants actuellement mën naa ne ci biir benn néeg HLM bëri na ay location mais bu dee benn néeg cinq personnes wala dix personnes mën nañ ko partager. loolu dafay affecté si canalisation yi booy xool les vendeurs de de de restaurants aussi ñooñu aussi dama leen ñuy alerter parce que ñoom bu ñu wàccee HLM ñi fi jaay yëpp particulièrement ñoom dëkkuñu fi bu ñëwee dañuy salteel suñu HLM bi ba doyal dem seen yoon bu ñu ñëwee fii la ñuy daanee seen doole mais fi ngay daanee sa doole moo war a njëkk a set moo war a njëkk a set ndax bu ñu paree les déchets toxiques là ci si canalisation yi lañ koy déverser. dafa dafa yokk ak marché bi marché bi réseau bi. réseau bi la ñu la ñu réseau bi moo moo des xam naa li ñu prévoir woon ci HLM ak ak léegi nu mu nekk ci marché bi li mu nekk ci marché bi dafa dafa dafa doy waar dafa jéggi dayoo ndax loolu aussi ci ci ci li koy àndi ci la bokk. lenn daal la ñu bëgg monsieur le maire bi nga xamante ne mooy monsieur Moustapha Diop moom ñëw na fi suñu frère bii si ginnaaw laaj ko ne ko ah ñun de lenn rek la bëgg nga jàppale ñu ko mooy suñu boucher bi nga jàppale ñu si mu ne mu ne ko carrément man lii sama compétence. mais bu fekkee du compétence am tamit war nañoo mën a dimbali ba ki nga xamante ni compétence am la gannaaw moom mooy maire te mooy premier magistrat gox bi donc moom am na benn contact am na contact yoo xamante ni ñun ñii mënuñu ko am su su bëggoon taxaw man du ma ne nag bëggu si taxaw mais su su bëggoon taxaw dinañ ci jàppale. dafa doy waar quoi parce que ay mag ñoo dëkk si koñ bi te fii bu taawee cat ba cat ngay gis ndox bi dafay ball. koñ bi kenn du amati foo jaar ñun jeunes yi ñooy mujjee di jël seeni matériel di teg ci koñ bi pour. maire am fu ñu jàll te boobu ba léegi ñu ngi ciy waslu aaq école bii man damay football si école bii nii te si koñ bi laa dëkk boo école bi élément yu bëri dañ may kalaamee booy seen koñ bi yow yaa ngi football si koñ bi mais teewul bouse bi du dugg si euh, école bi école bi ñun fii lañ juddoo fii lañ màggee fii lañ jàngee tamit kon bu ñu demee bay seetaan bouse du dugg si école bi parce que amatuñu pexe comprendre nga parce que ay mag yi dëkk si koñ bi tamit ñëw duñu kalaame te gis école boo xam ne yaatu na euh, bokkul ak nit yi fu ñuy jàngee ak fu terrain bi nekk ñu dañuy jéem a sacrifier terrain bi pour évacuer ndox bi pour muy génn fii di dem fii. soo gisee ñu jiital ñu parce que euh, dafa am yoo xamante ni ñun ñooy témoin quoi ñun ñoo si mën a wax mooy lii xew fii nii chaque jour ñun ñoo fi nekk presque suba ba ngoon nga si am comprendre tamit koñ bi ay mag buntu yi ñaari surtout ñaari buntu yi nii moo gën a sensible si koñ bi ay mag ñoo dëkk si kër yi mënuñu génn dañuy war a dem hôpital dañuy dugal ay oto ba si biir koñ bi ak mu xatee tamit bu ñu si mënee ñu jàppale ñu si monsieur le maire Moustapha Diop je le cite nommément ñu yow nga defaral ñu suñu boucher bi su fekkee mënu ngee nga du sa mais yow tu es premier magistrat am nga autorité yoo xamante ne nga leen woo ñu defaral ñu lii defaral ñu ko te yàlla tax loolu kese lañ ñaan. lamp yi yi ci ëpp dafa burle benn lamp moo fi tàkk te ci biir école bi la féete éclairage bi lamp tey mu tàkk suba suba du tàkk. bu ca gisoo fii nu mel xoolal fii gisoo nu mel affaire yi na trop. bu ñu demee ba HLM ñu ne mooy mooy maanaam commune bi nga xam si moo yor marché bi gën a mag ci Dakar kon donc HLM dañoo war a donc bi ñuy wax wàllum commune assainissement et tout ça maanaam HLM dafa des si ginnaaw de trop depuis euh, ancien ex maire bi fi jógee boobu ba tey ñoo ngi dund lii nii mu doon lu metti nag bon joytu nañ ko fu ne ba maire bi mu mujjee toog muy Moustapha Diop. joytu nañ ko ci moom bon parce que boo xoolee école bi nga si moo nekk nii tout pare ndox bu bon bi di fa versé ci boo xoolee ci euh, mur bu nekk ci ginnaawam foofu noonu la la la maire am nekk comprendre nga kon donc maanaam sagam moom moo mun a ubbi fenêtre am jàkkaarloog boucher bu metti bi ak sax am tuma ñun ñi nga xam si ñun ñooy xëy di ko nooy saa su ne mu doon lu metti même bu dul nawet day am day am ay ay ndox et puis dafay dafay day yàq mur yi. yàq euh, jàllukaay bi noy bi yëpp ko dafay dafay andi ay dégâts yu bëri lay def fi moom wax dëgg yàlla dégâts yu bëri. fii nga taxaw nii tey ñu ngi taxaw nii di wax a yow nii sax doo fi am doo fi am orage ba fiy taxaw kon dafa metti quoi bu demee ba ay mag di génn seen kër yi ñëw di témoin di wax loo xam ne ça fait des années te boobu ba léegi ñu ngi déglu di xaar amuñu ku ñu jàppale. tamit lii rek la ñu mën a def pour nit yi jàppale ñu tamit suñu koñ bi. donc ñun fi nga xamante ne foofu la dëkk. mooy suñu gox bi nii boucher bi di fi génn à chaque fois am nañu suñu ay fii koñ bi ay mag presque mag yi ñoo fi ëpp ay mag ñoo fi ne te xeet bi di ko xencu pendant deux mois rek doy na ma waxuma laa ne ñu bëgg ko fi xencu pendant des années ñu bëgg ko continuer parce que nii suñ ko seetaanee nii la toog ba nawet bi après bi ñëwaat nekkaat catastrophe yi. des fois ay mariage dafay am fii ay xew ay ngénte dëcc dëj day am fii pour yàlla na yeex nga gis bëgg a génnee sa koor doo am foo jaar. bëri na ay livreur yoo xam ne daanu leen fi samay famille yëpp ñu ngi extérieur mais du ñuy nangu ñëw fii ndax peut-être leur corps boo tàmbee nekk foofu sa yaram dina sensible sensible boo xam ne boo ñëwee dangay ngay af da ngay da ngay affecté mbir nag la muy jur ci ay jafe-jafe daanaka fokk natt rek weesu na ko kanaal yi di dem bay ball ay ndox quartier yi fees dell comme li ngeen koy séenee ci image yi wér-gu-yaramu askan wi taggateem bi ñu bëri ci askan wi feebar nañu. rawatina ñi nga xamante ne bii ñooy mag ñi ak tout tànk yi. mag ñi fi nekk aussi seen fenêtre yi yëpp dañ koy tëj déjà boo nekkee sa kër il faut ngay loy air libre parce que air boobu moo lay permettre ngay mën a respirer aisément et tout mais mënatuñ ko. ay mag yu feebar ñoo nekk ci koñ bi suñu sunu sunu papa yeeg yaay yi même les jeunes aussi affaire bi daf leen di da leen di kii da leen di jàpp aussi parce que moo tax ñu jël benn buntu sax def ko fii pour fii di jàll fii bu amee ndox fii sax doo fi taxaw. ndox bi day génn tout le temps tout le temps tout le day génn. dañoo woote woote def nañu lu ne waaye dara bu ñëwee ba fereetee bu ëllëgee mu ñëwaat ñuy ñaan na yéen yi nga xam ne yéen na ci nguur gi ngeen dimbali nu nu sonn nañu te danoo yor ay tuur tànk léeg-léeg nga gis ko daw daanu si biir buñ xale wàccee dañuy sonn ngeen dimbali nu rek doom luñ ci mën a def daal na ngeen nu dimbali te yàlla tax rek. ndax xam nga xet gu naqadi xet gu bon gi baaxul nga di ko dund nga di ko noyyi. baaxul ci mag baaxul ci xal te ñun ñi ay maga ne ci kaw ñi ngi feebar nekk ci kaw mënuñoo wàcc dañ leen dugal oto di leen faji di leen ñëw te feebar yooyu ñun ñi wéeru man ni wéeru nii mun ma taxaw ki mënul taxaw ñeneen ñi sax ñoo fi tane ñeneen ñi kenn mënu la génn te loolu yëpp dund ci xet gu naqadi di ko nooy yi ñaata at noor ak nawet bu nawetee day gën a fees ñu nekk moom bu nooree muy fees ñuy ñaan nag ku ñu dimbali ngir jëmm yàlla ñu dimbaluñu ci ndax ñu ngir jëmm yàlla xet gi metti na buuse bi metti na ñun même bu duggee ci école ñun ñoo koy noyyi parce que bu jógee salté bu nekk ci école bi ñoom ñoo koy dundaat parce que ñun ñoo koy noyyi suñu doom a fiy jàng suñuy sët a jàng suñuy sëtaat waaye ngelaw leen nag bu ko naawalee ñëpp a koy nooy ñëpp a koy xeeñ de. donte ñoom askan wi def nañu ay jéego lu yàgg lool ngir jot ci kilifa yi nga xamante ne ñoo nekkee ci bile commune bu HLM ba tey jii France daal di xëddeem amul kenn ku jóg ngir jàppale leen rawatina seen maire. am njàqare moo tax jamono ji nag ñuy sàkku ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo di nguur gu bees gi bu ko defee ñu mën leen a wàllu ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkuwanteel te itam yàgg na lool. di si woo monsieur le président euh, son excellence Bassirou Diomaye Faye ak monsieur le ministre parce que affaire bi vidéo bi mën na laaw ba dem fenn peut lii mooy doon solution pour ñu régler ñu suñu problème. waaw ak assainissement ministre de l' assainissement ñoom ñëpp nañ ñu jàppale si lii daal ñu jàppale ñu parce que au vingt et unième siècle fu toll ni HLM 5 na dépasser lii quoi te problème HLM nag ONAS ki ñu fal yi war na see taxaw parce que HLM problème buuse la am loolu rek mooy problème mu HLM ak dara dara dara baaxu fi même même suñu kër yi nii ñun dañuy fay chaque man am na benn benn boy buy liggéey ONAS chaque trois jours man man personnellement dama koy fay 2000 francs pour muy déboucher. on avait fait une parce que comme la mairie c'est un porteur de voix c'est eux-mêmes ñoom ñoo war a nekk ci suñuy engagement parce que bu ñu jaaxlee mairie bi la war a dem waxal mairie bi nag nee na moom mënu ci dara donc nag ñun on a wax nañu ONAS ñu ne ñoom aussi ak avec les nouveaux tuyaux là tuyaux yi ñu ngi ñu ngi koy defar ci parce que am na benn contrat boo xam ne on l'a signé avec les chinois mais tuyaux yi dafa ñëwagul fii mais ça tarde mais il faut prendre les urgences en en en en en actuellement parce que ñun urgence la. bien vrai que ñoom excès gu ñu fii excès gu ñu fii mais lii dafa nekk urgence pour santé population bi dafa nekk urgence parce que di ko respirer rek parce que l'eau là c'est c'est de l'acide di ko respirer rek mën naa ne dafa dafa grave donc ñoom nag ñoom ñoo ñu war a ñëw secourir en net installer les nouveaux tuyaux bàyyi fa fële ñi nga xam ni du wax ni ñoo ñooñu duñu urgence mais travaux yi continuer la mais comme fii dañoo am urgence boobu damay alerter état bi surtout ba son excellence monsieur euh, Bassirou Diomaye Faye ak euh, son premier ministre euh, Ousmane Sonko pour ñu jóg ci lii parler au concernés pour wax leen le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement pour ñu mën a pour ñu mën pour ñu mën a dooleel parce que affaire assainissement dafa nekk loo xam dañ ko sàgganee ci ci ci ci Sénégal. di woo monsieur le président di woo premier ministre ñëpp ñu dimbali ñu ak autorités yi ñi nekk ONAS directeur ONAS di leen woo pour ñu dimbali ñu ci li sonn nañ trop parce que affaire bi metti na. parce que mënoo toog fii di jaay lekk xet bi ngay fi ngay toog di jaay lekk xet bi di xeeñ nit yi mënoo xëy di di di euh, di nga toog di añ xet bi di jaay ngay toog di reer xet bi di di xeeñ mënul nekk nañ ñu dimbali daal ñu ngi ñaan yàlla ku ñu dimbali bokk parce que affaire bi métti na trop. xanaa le chargé chargé de l' assainissement ministre de l' assainissement ñu ngi ko siy woo pour ñu dimbali ñu euh, directeur ONAS aussi normalement am na ay chargé parce que HLM moom visage bi moom doy na waar. parce que dañoo dem ba marché bi nangu kër yi marché bi nangu na kër yi parce que ñoom pour man mairie bi bu jëloon bu bu bu teniroon en compte sunu sunu sunu bien-être du privilégié marché bi dañoo privilégié marché bi ba fàttee dëkkandoo ñi nga xam ne ñun fii nañuy fanaan parce que HLM boo duggee nii bëccëg bi da nga naan ay yaa du monde mais à partir de timis ba marché bi tëj da nga naan kenn dëkku fi. kon dem leen ba marché bi nangu nangu nangu dëkkuwaaye. xëy na jumtukaay yi ca war lañu amul lañ la amagul ñoom moo waral maanaam ba tey mateegul mais maanaam ñoom ñu ngi ciy waslu ak lu ñu mën mais bu ñu sonoon bu doon suñuy sago wax dëgg yàlla ñu ngi lancé manaam appel di ko lancé maanaam kilifa bi am si moo nekk ci. waaw moo nekk ki am si moo jiite réew mi ku ci mel ni comme maanaam suñu président son excellence Bassirou Diomaye Faye mi nga am si dañoo xeex ba mu am li mu am tey voilà ñun ñoo ngi koy ñaan njekk mu taxawuñu si suñu gox bi nii sagam ñun ku ñu teg ci gox bi xëy na lox maanaam bëgg na ko def mais loxam jotewul ci def ko mu jàppale ko mook suñu excellence maanaam euh, premier ministre euh, Ousmane Sonko waaw ñu nekk ay ay ay homme de vertu ay homme de yoo xam ne si ay dignité la ñuy demee seen ngor waaw ñun patriotes yi ñun dañoo yàgg nekk seen ginnaaw jàppale leen ci xeex bu ne man boo bokk naa ci ñuy xeex ngir Sonko ba tey dama koy wax fépp voilà bon donc man donc leen rek laa am lu may lancé mooy ñu taxawuñu jàppale ñu parce que ñun sonn nañ trop parce que dañoo dëkk ak suñu ay papa dëkk ak suñu ay yaay dëkk suñu ay maam te ñoom ay mag lañu donc ñun bu doon suñu sago daal xam nga ñu jàpp ñu si parce que ça ça dure depuis sept ans xam nga yàgg quoi boucher bi day ball ci koñ bi te koñ bi benn issue donc léegi bu balee fees fi dell nit kenn du am foo jàll passe ina euh, impasse lay doon. ci leen di xaar mooy ñu ñëw dimbali ñu ba ndox mi. bañ fee bañ fee taawati loolu daal bu ñu ko amee avant nawet bi daal moo ñu moo ñu arrangé moom vraiment bu ko amee balaa nawet balaa nawet bi daal mu ñu dindi ko daal moo moo moo gën arranger arrangé trop trop xam nga ndoo moom ak taw su ñëwee day dugg si biir kër yi après day am na dégâts rek xam nga yaa ma gën a xam dégâts yi muy def day day day day métti trop quoi waaw macha allah fii nii boo amee ndox boo amee malade sox doo ko génn si kër gi wala bu amee xew doo mun a taxaw fii waaw parce que fii yëpp day fees ndox. loolu daal bu ñu mënee dimbali ci ndox mi muy muy dem ñu ñu dimbali ci quoi vraiment ñu ñu ngi leen di xaar ci loolu bu baax a baax leen tàllal loxo ci loolu surtout surtout ndox mi daal nawet bi daal ñu dimbali ci avant nawet bi sax buñ buñ ko defee moo moo ñu arrangé quoi. sonn yàgg na ah, de de ça fait des mois est-ce que deful at sax parce que na kenn mënu ko dindi day dem ak ñëw di dem ak ñëw di dem ak ñëw donc chaque jour da ngay moom ay ak ak bi la ngay ngay ngay ngay ngay dund quoi ak ndox mi ak ndox ndox bu taa bi ngay nekk fii ci koñ bi waaw buñ ci mënee dimbale daal macha allah maa di ñaan yàlla sunu soxla bi yàlla na ko yàlla faj. parce que bouse bi yàgg na ñoo moom noor ak nawet ñoo moom defe naa ëpp na léegi ñetti at bu nawetee ñoo moom bu moom lool. mag ñi feebar nañu fi ndaw ñi feebar nañu fi xet gi moo pone moo ñu feebar. sunu biir kër yi fees sunu buntu kër yi fees amuñu fu nu jaar bu nuy génn ñu dëkk ko ñetti at mu metti lool fu ne woote nañ fa walla ku fi romb xaar na gis na sunu buuse bii ñuy ñaan na ngir jëmmi yàlla gouvernement bu bees bi ak yéen ku ci man mu dimbali nu ci buuse bi ñëppay xeeñ xet gi foo dëkkee école boo ci dëkkul boo xuusee boo xuusul boo ko soree boo kalee sa kër ba ndox mu ñëwul it xet gi kenn doon ko kale xet gi day xeeñ ñëpp kon moo tax ñu ñaan dimbal lu ci waay man rek ngir yàlla noonu ci dimbali bala nawet bi ñëw ñu defaloon nu ko ñun ba xet gi tàggoog na. fii ci diwaanu Ndakaaru rawatina ci quartier bii nga xamante ni bii mooy HLM 5. askan wi ci njàqare la ñu nekk ndaxte njort nañu ne bés bu taw bi wàccee jafe-jafe yi dina gën a jéggi dayoo loole moo tax ñu yëkkati seen kàddu bëgg ñu dégg leen donte sax am nañu yaakaar ci nguur gu bees gii ngir mu jëlee fii jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo ngi koy dund ci bile ci lu yàgg lool la